mooy ma Maham jàlloo ñu tabb ko léegi mu nekk DGI di doyen des juges d'instruction wutu ndam ci yàlla Samba Sall moom ma xam Diallo ne woon ba fii euh, pré chambre ca Ziguinchor mu nekkoon kon euh, ca cour d'appel bu Ziguinchor foofa ca Ziguinchor nag nit ñi liñ jàpp ci moom moo di ne Oumar Maham Diallo nit nekk nit ko xam te ne ku woyof la te ku jàpp njàmburam la Lamine Ba ki fi ne woon septembre léegi président de la chambre d'accusation de la cour d'appel bu Ziguinchor la ñu tàbb démb mu nekk doyen des juges d'instruction ginnaaw bu ñu bu baax a jàpp nañu nag ay compétence yi mën tax fonction yu bees yooyu nga xam nag dénk nañ ko mu mën ko yóbbu na mu waree moom nga xam nag nañu ko jege xam ne kuy làkk yu bari la li ko weesu nee nañu dafa wàccee boppam ndaxte li nga gis ko mu jël ay taxi ci jamono ji nga xam ne na oto yu gën bakkanee nga xam ne yor na ko yi wuteeg nga xam ne dañuy faral di ko nemmeeku ci transport public publique yi moom mi nga xam ne nekkoon nag juge bu tribunal régional bu Dakar ak président chambre d'accusation bu cour d'appel bu Dakar ba 2016 nee nañu ko mën a boole la li nga xam ne nag li ko liggéeyam sant dossier yi nga xam ne dafay faral di yegg a mu faral nag di ko teg ci kaw yoon loolu kenn ci nga xam ne moom la bokk liggéey moo ñu ko dénk te ci suba moom nag taay moyen la xaw xees tuuti Omar Maham Diallo nag mu ngi jóge jamono